di leen masaw dama dégg Youssou mu ne masta maa ngi masawu président de la république mu def ma ay ree lool mu ne Youssou Ndour mooy masawu président te bañ a masawu peuple sénégalais mu wax Sidi Lamine mii ne ko massa moo ma gënal ndax tool bi gënoon na fay déy mu root rootaal leen dañuy metti ñëwul dem place de l'obélisque kenn ñëwul dem place de l'indépendance moom mi moo xuus mu neex mu naxari moo ubbi baal bi ba ku nekk ñeme ba waroon mën a taxaw bu fi Ablaye di nekkee ngay xeex li ngay xeex nag xeexu principe la ak teg ko ci dëgg mais du woon xeex xeexu yaa ma neex ba ku ci ne ci liggéey bi nekkoon ci opposition ba mu jeex tak y compris le président actuelle boo daan wax sax da daan am problème foo waxee ti es nga jël Walfadjri bii mu jëlal la la ngay def en direct wala nga ñëw fi wax donc ngàcc ngàllaama yéen Walfadjri ci loolu nga xamante ne liggéey ngeen ko dëmb ak barki démb lépp nag ngeen teg ko ci intéret sénégalais yi